ah sama gars yi les nokos de paix ndala de waaw waaw les nokos de paix au 77 613 53 45 boo ci wootee mën a commandé sa ay nokkos waaw waaw nokos yu saf sap yu ñu defar ci anam bu sell. ñaari tetu ay la ñuy ñaari bopp laaj def xorom def poobar euh, def ci huile d'olive laxas ko ci papier film dugal ko ci fuur bi voilà. léegi nag suite bi mu ngi ñëw léegi voilà léegi nag ci four bi lañ koy bàyyi ko fi pendant trente jàpp quarante quarante cinq minutes ba mu nooy nepp waaw ay mi ngoog sama gars yi ci noonu ma nuyuwaat leen waaw euh, comme ni ma leen ko expliquer sànq euh, nuy naa leen comme dañu nekk ci recette feet feetu fin dafa am ay ñamatoos yoo xamante ne waaw dafay rafetal table ba pare dafa neex voilà laaj bi ma bi ma doon enfourne bi ma enfourné woon sànq mi ngi nii maa ngi ciy ñëw léegi li ma am ci table bi tamit maa ngi ñëw euh, présenté ko mais dañuy defar benn recette express boo xamante ne euh, baax na ci feeti sama gars yi euh, pain à l'ail boo xamante ne mburu la waaw mburu laaj beurre persil xorom poobar fromage waaw parce que dañ ciy def fromage ba mu neex def ci persil wala nga def ci sa ciboulette euh, euh, loo am baax na mu nekk recette yoo xamante ni dafay égayer table dafay rafetal table bi ba noppi euh, baax na ci gutte xale yi am na ñaari façon recette nag yoo xamante ni laaj bu ñorul lañ koy defaree am na ñoo xamante ne laaj bu lañ koy defaree comme man essayé woon naa laaj bu ñorul bi tey dama bëgg essayer laaj bi nga xamante ni moom laa dugaloon ci four bi léegi ñu defar ko recette express lay doon comme ni ma ko waxee dina am ci décembre bi ay recettes yoo xamante ni Euh, dama leen koy expliquer am yoo xamante ne vite fait lay lay am am na yoo xam nag yoo xamante ni damay yégal niveau bi <laughs> waaw comme ni ma koy defee saa su nekk euh, ñu indi le maximum de recettes pour mën a neexal feet yi surtout yéen ñi nga xamante ni yéen a koy xaar sama gars ay ca ñu dem ci pain à boo xamante ne la mu saf ëpp na waaye ca mi ngoog sama gars euh, yi boo am baax na mais beurre pommade beurre température boo xamante ni dañ ko bàyyi ci biti ba mu nooy fromage baa ngi noonu tege lii quelques noix fruits secs la waaw élément décoratif la rek pour mu mën a rafetal tomat cerise yaa ngi ne la tege donc laaj bi ak benn mburu boo amee kilo mburu baax na mburu bu euh, bu duuf bi baax na mburu bu sew bi baax na euh, palaat bi nag suñu enf defaree mburu bi ba pare ci lañ koy ci lañ koy def ak beurre boo xamante ni dañ ko bàyyi ci biti pour mu neex a laaj bi ñu enfourné woon a ni donc dañ koy bës paccal ko fii ci biir ci biir beurre bi gis nga xam nga laaj baa ngi ni di génn voilà nii lañ koy def récupérer laaj bi ñu enfourné woon dafa neex xetu laaj bu ñu enfourné dafa neex xaw ma ndax sopp ngeen ko wala sopp leen ko waaye man sopp naa ko trop comme ni ma ko waxee léegi dafa am ñaari façon recette donc ñaari gousse daay laa am parce que sama kilo mburu la ba pare euh, bu mélange bi mën nañ ci bañ a def yëpp mën nañ denc li ci des tuuti xorom ak poobar persil awma persil persil bu tooy bi moo tax ma jël persil persil séché bi parce bu ñu ko woowalee tamit ak bu tooyee yëpp benn la léegi nag li de mooy ñu paccal ko def ko nii écrasé ko tuuti xorom mu am gu voilà xam nga li yomb na laaj beurre persil dolliwaat persil parce que persil bi da koy rafetal léegi ñu koy écrasé voilà léegi sunu beurre bi ñu def bi ñu def laaj bi ak euh, persil bi def naa ci tuuti ciboulette xorom poobar pare na. mën nañu ñam xool ndax xorom bi ëppul voilà dafa neex ci poulet rôti maanaam mélange bi nii neex na ci poulet rôti neex na ci méchoui waaw mais tey nag ci mburu lañ koy def sama gars yi. nuyu naa leen séeréer yi bëgg mburu nag c'est que mburu moo neex nag mburu dafa neex voilà ñun comme bi pain complet la voilà fii nii dafa may tere mu mu tàpp dama koy génnee nii pour mu mën a tegu léegi dañ ciy def euh, beurre bi taal four bi nag boo amul four mën nga jël euh, poêle ah. mën nga jël sa poêle euh, tàngal ko voilà teg ko ci wàññi gaz bi même résultat bi ngay am bégal sunu bopp rek du sunu feet waaye <laughs> comme dañ ko commercialiser moom léegi waaw na ci ñëpp xaj ngoog taman chaîne cuisine laa yor ñoo koy am ay promotion di dox ci yu baax di dox ci yu neex te xam nga laaj moom dafa bëri vertu voilà léegi fromage bay des ci sama gars xam nga lii rafet na aywa nañ ko fromage waa tim fromage fu ngeen toogee Sémou Diouf tim fromage la bokk suma jumule Sémou ngook Latifa Konaté depuis Maroc tim croustillant tim fromage léegi dama sax am tim épice voilà léegi li ciy des mooy dugal ko ci fuur bi wala nga def ko ci sa poêle wàññi sa gaz voilà am sa pain à l'ail bu neex boo xamante ni version Alphie Cuisine ngay am pour nag mu gën a rafet tuuti persi voilà on enfourne le tout pendant quinze minutes daal di ñëwaat sama gars yi kenn du ci four bi mi ngoog ñu dugal ko pendant 15 minutes ba mu dooree ba mel ni pizza waaw koy bu génnee nag ñu daal di koy dog-doge waaw yëf yaa ngay goste waaw kay ma ngay xeeñ lu neex waaye lii ça donne envie waay cherul ba pare neex na waaw kay ñu ko fi bàyyiwaat benn 10 minute waa ayca nag léegi pare na comme ni ma ko waxee woon ça dépend duñ koy daggee <laughs> yéen a ngi dégg croustillant bi kañ fromage bi moom comme dafa tàng donc euh, boo deful ndànk rek dafay dañ donc nii lañ koy daggee voilà suñu ngi saf sàpp ak beurre waaw saf sàpp ak laaj mi ngoog am gis nga couche fromage bi mënoon na gën a doore nii mais damay bañ sama mburu bi xëm moo tax ma teel ko génne. voilà pare na sama gars yi comme ni ngeen ko gisee dégusté rek moo ci des. Hmm. gaaw yomb neex a defar ba pare neex. Hmm. guubu laaj bi doo ko sentir bu baax. pour ñi nga xamante ni dañu ragal laaj. doo sentir guubu laaj bi bu baax ay tamit par contre beurre bi ak fromage bi ça se sent bien on se donne rendez-vous très bientôt bu leen fàtte liker commenter abonné wu sama gars yi kenn du yéen ah sama gars yi les nokos de pain ndala de waaw waaw les de pain au 77 613 53 45 boo ci wootee mën a commandé sa ay nokkos waaw nokkos yu saf sap yu ñu defar ci anam bu sell